rek mooy jàmm am biir Sénégal parce que Sénégal bu mu sosoo bañ tey 4 avril 1960 jàmm rek moo fi am dañ dee am élection yu leer élection yu set élection yu óor léegi nag bu buñ toog bañ ñëw tey pour am 24 février élection bi loolu war a mun a génn Sénégal sénégalais liñ la na ñaan mooy ngeen waxtaan parce que yépp si waxtaan la tey dégg ngeen suñ président assemblée assemblée CEDEAO assemblée bi oote na wax na ñim gis ñëpp wax na waxtaan bi ak ñim fi tegoo mu ne semaine buy ñëw nii bugaat na ECOWAS commission ak ECOWAS parlement ñu defaat beneen délégation ñu ñëwaat ñu waxtaanaat ak waa Sénégal pour jàmma am parce que jàmma li ko saxal ñun loolu moo ñu fi indi ñëwuñ fi nag dégg ngeen ni mu ko leeralee pour far faral kenn parce que ñun bokkuñu ci élection yi Sénégal waaye luñ bëgg a mooy ñu respecté constitution yi Sénégal bi respecté li loi bi wax respecter élection bi pour élection bi mun a am si jàmm ak salaam ak mu am si nim gën a mun a gaawee